ñu dem ci li nga xam ne mooy Lat Diop démb convoqué nañ ko lu soxal coowal milliards yi nga xam ni doon nañ ko fi wax ca këram mujj na nag yoon daal di autosaisir ci hmm? ah pareegul boobu laa bëggoon mujj kon baa ma dem ci Suzanne aywa kon ñu dem ci Ameth Suzanne boobu nee des na tuuti rek incha allah.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 pour conserver la pouvoir. mais. Euh, euh, du mu ngi nii nag caisse de l'État dara newu ci Diomaye day fen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 wala mi ngi noonu kooku mooy Suzanne ñu jéggulu mboolem ñi nga xam ne déglu nañ waaye nag ni mu amee rek loolu yi lañ ko bëggoon a wan Sénégal yi que ni ma defaa nga wax ñu ni dañu manipuler wala nangam nii nag la Suzanne def démb euh, démb defe naa bi ñu àndee yaa ngi doon jox it toor it ñi invité ñu def lu mel noonu ba pare wala que nga dagg ko nga bàyyi ko maanaam mu nekk émission en différé nekkul direct nga bàyyi yooyu jàll hmm. waaye bu loolu lépp jàllee nag moom mii moo ko wax hmm. te njiitu réew mi la euh, jàll baat dafa am loo xamante ni maanaam maam nit du ko wax kilifaam am ñoo xamante ni nit di naan jomb na maa wax lii am ñoo xam ne dañ naan lii rus naa koo wax am ñoo xam ne dañ naan lii jombale naa ak sa bopp am na ñoo xam ne naan lii consistant bi dama koy tere kii consistant bi dafa may tere lii duñu wax loolu mais nag moom bu fekkee ne moom xool na yooyu yëpp ay kilifte fa yooyu teg ko nee mu dugg ci côté consistant bi consistant bi terewu ko mu wax ko daal di koy wax loolu kon man du si am problème. Mm-hmm. xam nga wax bu fekkee ne constitution bi may na ko moom mu wax leen lii. Mm-hmm. constitution may na ko. dama ne bu fekkee constitution bi may na ko ko. waaw ndax yaakaar naa bu fekkoon ne constitution bi mayu ko du hmm? moo ko tere. moo ko tere moo ko tere. mi nga di ko jàll baat. waaw mais est ce lii ci la. lan lii mu wax ni président bi. est ce que mais xam nga lii yow ñi même yow boo wéetee sa nekk ñi ma wax li président non man bi sax du ma ko wax loolu. waaw. waaw mais moom xaj na ginnaaw politicien la te te ñime na ko te te jomb ko. Hmm. kon man te gis naa ni bu fekkoon dafa def këram def audio. Hmm. wala mu toog def ab tik ci tiktokam. Hmm. wala mu def benn vidéo partagé su boobaa mën nañ ni kat daa def nii daa def nii mais dafa toog si ab télé. Ah. di ko wax ñaan ko déet warmaal ko def ko nangam def ko nangam te ñëpp a nga fa émission bi ñu arrêté kon ñi xam nañ ne bu fekkoon ni li constitution bi da koy tere mais ñi mu wuñ ko jàllale. waaw kon li constitution bi nangu na ko. non constitution bi mënu koo bañ bu constitution bañoon télé bi ñemewu koo teg bu constitution bañoon moom du fanaan bi këram. moom waa ji waaw. comme que nag wax na ko télé bi teg na ko. Hmm. man wax naa ko fii bu ñu bëggee régler dëkk bi moom ñii defuñu dara. ñan ñii wax sosaan mii deful dara. sosaan bu doon def dara day day def ab vidéo partagé ko ñun eh vidéo sosaan bi am waaye ma ko wala mu def ab audio partagé ko ñun wala mu def ab texte si paasam partagé mais du ko def. il faut mu jël koo xamante ni mooy doon responsabilité bi mbir mi. Mhm. mu làqatu si a wax li mu bëgg a wax. ok kon sosaan kenn mënu koo woo di ko wax dara dañ koo éviter ñu arrêté ko mu wax kii wax naa ko déedéet ndànk ak war maalal mu wax li muy wax. kon daal man li mu wax kon ki invité da ci am part ah, na ko dagg bu fekkee jaarul mais xaj na ñoom xool nañ ko ba xam ne lii constitution bi terewu ko ñu bàyyi mu jàll. ok kon mënu mu ko see wax dara joxe hélas. Ndiogou. Hmm. Suzanne de bari na yu muy def yu mel nii. bu ñu fàttalikoo sax tuumaaloon na fi soxna Cheikh Béthio Thioune ak euh, kii euh, waaja Aly Ngouille Ndiaye ay jamono bañ ñëwoon a ah, lii de moom xam naa ni gaa yi duñ ko bàyyi mu sedd waaye génn na ci maanaam daal Suzanne lu mu mës a dugg génn na ci am ñu ni nag wérut démb nag lii la waxaat wax ko njiitu réew mi ak premier ministre waaw dara dara dalu ko nag dafa yaree di ko rek xam nga. dara dalu ko moom bu yaree di ko. Euh, mën naa waxee nu ne. mais lii ku wér dina ko def. non dara dalu ko yare di ko rek mën naa am sax day daw bor bu mu amee bëgg ñu tëj ko waaye kenn du ko fi tëjee parce que nañ ko bàyyeeg. kenn du ko tëj. système bi système bi ni mu daanoo da leen a bett di. Ah bul yaakaar ni lu ne mën naa ci xam nga Suzanne dafa wax wax joo xam ne moom ci boppam mi ñëw di wax ne président li mu wax amut kii li mu wax amut. moom daf ñoo waxut li ab waaw kon moom dañuy jàpp ni ay waxam moo amut te moom li muy défendre parce que man su ma ñëwee weddi hmm. ne biteel bii ndox mi daa wex ndox mi hmm. ndox nekku ci meewa ci ne hmm. Ah? waaye son bi ma wax ne ma ndoxa ci ne waxul dëgg man kañ naa leeral di tax ma ne mais wa ci ne. ba pare wane ko. wane ko yow boo ñëwee weddi waxi président da nga ñuy wax ne fii kat xam nga nee na li mu wax ci kees d'avance caisse caisse caisse kii nu mu tuddati wax ci caisse ne fekk fa dara. waaw foofu amut accès. mooy fond mën caa xam dara moom. la bëggoon moom amul accès foofu. est-ce que mas naa dugg pale. non non dugg <laughs> amul. accès alaaji loolu nga def noonu lan la. day tappale. yaa ngi dégg. Suzanne munul am accès niveau bi président di waxee amul accès foofu moom moom yeggu fa. Hmm. du leen na ko may pour mu mën a vérifier li président di wax. mais mën naa am information. ba information. kan moo ah, koy jox information au corps de système. kan moo koy jox information Macky. Macky lan la lay joxee wëkk kees yi lan la lay waxee ne la wëkk naa kees yi. Hmm. bu wëkkee kees yi dina wax Suzanne ne ko kees yi de jël naa lépp loolu du ko ko wax. Hmm. léegi moom lu tax ñu mën a gëm moom xibaaram moom fa mu ko jëlee fa mu ko jëlee ñooñu lañ wax ne yéen a wëq yëf yi ah. Hmm. kii ñëw ne fekkuma ci yëf yi dara moom mu ñuy indil xibaaru ñi ko wëq. Hmm. daan ne ñii ñëw fekk fi lii ñu fi fekk li ñu wax amut man ñi wëq kees yi ñoom laa nekkaloon te nee nañ ma wëquñu ko ñoom lañ tuumaal. waaw donc moom bu bëggee ñëw imposer ñu. ne ñu lii waxam yi mooy dëgg waxam ji mënuñu ko nga xam ne moo tax mënuñoo gëm waxam ji ne du dëgg. Hmm. xoolal rek secteur yëpp rek secteur yëpp xoolal ña fa nekkoon nañ doon doxale yàqate gu amut àpp li leen Assane doon wax ci lañ ko hmm. buub wasaare signé contrat yu bon. def loo xamante ni bi kenn xamul nooy la dem ba nga xamante ni bi dernier moment ku la romb ci mbedd mi sax nga fal ko. Hmm. di falee la neex yaa ngi dégg. xam nga pare ma dégg ñu ne way jomaay euh, euh, fi mu toll nii mi ngi dàq ñu bari mi ngi dàq ñu bari mais ñi ñu doon jël jël gu bari gi rek la ñuy dàq di. parce que jël bu teguwut ci benn yoon la ñoom ñu ñu doon jël xamoon nañ ñi ñii di leen jël duñ fa toog. ñooñ lañ doon caser rek donc Suzanne nag man dama jàpp ni son yi. wallaahi euh, genre Suzanne yi. il faut ñu yar leen parce que dañoo ni ñuy comporté woo. il faut nga respecter njiitu réew. yar mooy leen duma wala ni non non président Macky Sall bi mu fi nekkee tamit son kenn cautionné wul nit ki taxaw di wax waxu ñàkk yar jëmale ko mu neex ko jomaay mooy président mu naqari ko jomaay mooy président loolu nag bu fekkee ne dafa bëgg mu dañ ne dindi kiiwu Sénégal génn territoire Sénégal. waa léegi après Assane nee na. waaw lii bu doon constitution da ko bañ teg. non non xam nga. télé bi ñu ko invité mu koy wax moom télé kii moom <laughs> internet yi moom. la plupart xam nga loolu bu ko waxoon fii duñ ko teg. fii moom bu doon fii la wax ji njëkk a dooree. du fi jàll. sànq rek bi muy jàll ñi nga naan. waaw dañu foogoon fàllu parce que war nañ ko def parce que bëgguñu mu jàllee noonu. Mhm. comprendre xam naa fàll dafa dafa xam nga loolu mooy li nga xamante ni moom moo ci ne. Mhm. mais wax yii nga xamante ni moom la wax nii doo ñëw def plateau boo xamante ni ñu ngi ko defee fii. nit ki ñëw ak ku mën a doon wax yenn wax yi jëmale ko ci euh, kilifa réew mi ñu koy jàllale comme ni nga xamante ni noonu ki d'accord léegi wax nga ñaar nee nga kenn du ko fi tëj waaw nee nga nañ ko yar léegi loolu mooy lan non xam nga sisaan man bon kenn du ko tëj boobu dama la doon wax rek dama la doon wax waxu kii la ko waxu waxu mbalak la quoi pour wan la rek ne la gars yi fu ne la làqatoo quoi dañuy yor ay bor fii yor ay bor fële comprendre nga liñ nekk ni daanaka prison la loolu la comprendre mais li nga xamante ni bii moom la article bi wax ci koo xamante ni ki offensé nga njiitu réew yat wi daa war a dal ci sa kaw maanaam ñu duma ko daal ah ñu duma ko non yat wi daa war a kaw cela veut dire que mooy yoon dafa war a dal ci sa kaw li yoon wax ci yow ñu def la ko ay bu doon sama président ñu duma la ma ne bu doon lii dafa dafa jaaduwut <laughs> dafa jaadu parce que hmm? soo ko cautionné du génn du génn am na yoo xam ne soo ko bàyyee mu jàll dafa mel ni ubbi nga benn bunt pour léegi nit ñi mën nañu wax loolu quoi te nag loolu buntu boobu lu ñu dafa yàgg toogaanu toogaanu wuñ foon benn bu def émission mu pare rek ñu génn ñu jël ko la wala fa am na fi ñaar Pape Sané ko dal na fi ñeneen ñeneen hmm. fii da ngay def émission pare gars yi toogaanu la nga pare ñu ni la coppet yóbbu waaw ah, mais xam nga boobu sax façon bi niñ ko doon defee ñooñu ñi ñu doon jàpp waxuñu fi dara lu garaaw hmm. yaa ngi de waxuñu woon dara loolu ñooñu kenn waru leen di jàpp ci loolu mais kii taxaw di wax yenn wax yi jëmale ko ci njiitu réew vraiment nekkul loo xamante ni bi lu rafet la. waaw te yow li ngay wax noonu yow. amoo benn information boo xam ne moo mën a weddi xibaaru ki nga xam ne moo joxe xibaar bi yow mënoo ko am amoo ko parce que amoo accès ci foofu pour mën a taxaw di wax ne da ngay contredire président. ban accès la ci am Suzanne de Suzanne de booy pare émission fii di daje moom ci boutique dara du ko dal. <laughs> est ce que léegi mu ngi ci gaz bi parce que gaz du xam naa boobu mi ngi doon gañado est ce que léegi du wàccut. boobu la waroon a moom ci nguur gi. nguur waaw ah, nga assemblée nekkoon na fi assemblée di liggéey ci wetu Moustapha Niasse am na lu mu ko fi waxaloon Moustapha Niass moom fàtte ko dàq ko xam naa dafa defoon ni bu ko Moustapha Niass dàq xel Macky Sall dina kii après muy wëndeelu nguur gi yëpp da koo wëndeelu <laughs> ah oui waaw nekkoon na ci wetu Moustapha nekkoon na ci wetu Moustapha Niass mos nañ ko fay jël mais yaruwul daal c'est xam nga mag mu yaruwul la quoi d'accord nit da ngay yaru am na loo xamante ne bii war nga ko jombale sa bopp quoi li Assane wax sànq ci jomb hmm. xam nga Assane mën ngaa toog yow foo xamante ni fi yow képp fa ne. Mhm. mais jomb ngaa yëkkati baat bu ñaaw. di ko mhm. wax nit. koo xamante ni sax peut-être sax kenn déggu la. Mhm. mais rus nga ko. parce que sa bopp sa jëmmi bopp ji nga rus. di yëkkati kàddu gu ñaaw gi di ko jëmale ci nit. c'est nit dafa am fooy toll quoi. d'accord yow boo jàppee ni wax yi waxu ko daanu ci sareet yi. non dafa yaree di ko quoi. mais du fit demoon maa xamul dafa yaree di ko ban fit. waa waa léegi loolu. ku la mën a duma nga léegi loolu alaaji xam nga damay gis loo xam ne ñun donte ñun bu masaan ñëw victime ne sax duñ ko cautionné maanaam nit jàll baat sa nga duma xam nga loolu gis nañ ko bataay mm. mais dama gis bu dee suñu kilifa yi nga xam ne mooy suñu kilifa euh, tarixa yi ku leen jàll baat mm. gars yi dañ lay duma ba lay fotali sagaram mais yow rek du ci àddu mm-hmm. day bàyyi noonu léegi est ce que itamit njiitum réew waruñoo yem rek ci ay article 4 bi mais ku fi jàllati comme ni fi nguur sa nekkoon France defoon mag Sall jàll dugg ci way waajuram dugg ci soxnaam dugg ci juge yeeg magistrat yeeg kii est-ce que yooyu maanaam ay duma waru ci am. non duma moom du hmm. baaxul. baaxul duma kay doon du yoon moom baaxul. Ah! ñi am dañu am fi teg ñu yor leen duma it du yoon yoon li mu teg. Hmm. non pas nit kar rek dóor de duma la. non duma baaxul bul wax duma. mais l'islam day duma. da duma mais bul duma l'islam fan la waxee duma ci kii. l'islam da duma leen. wadribuhunna. waaye wadribuhunna <laughs> kii la la wax. <laughs> yaa ma laaj <laughs> waaw. jàppale nit ñi di dund. léegi watri boobu la. xam ci jëkkër ak foofu ci jëkkër ak jabar li sàfal la ma ngay dóor. léegi watri boobu la ci jëkkër ak jabar la. léegi ji daa am lu mu def ñu bëgg koo yar. waaw mais kii li waxu la ci ne jàpp duma xam nga yii boo ubbee buntu duma affaire yi mën naa gaaw quoi day jëm ci yeneen xam nga yooyu day jëm ci ay torture ak ay yeneen affaire yooyu xam nga léeg-léeg nga dalal ñaar kenn ki jàll baat kenn ki ku ku yee jóg. waaw kon loolu dina tàmbale am. <laughs> aywa non état parfois tamit il faut am noo xam ne son bi noonu la war a doxalee ah. macha allah parce que tamit sinon boo bàyyee ñii. anarchie gis nga président Macky bi mu soog a fay falu mais waa PDS dañ ko yaboon. Mm-hmm. dañ ko daan këlli këlle. Mm-hmm. mais gis nga bi mu leen làqarcee. Mm. ñoom ñëpp a ne cocc. ah nii lañ daan def ah, mm-hmm. ah. di wax maanaam dañu respecté wutoon Macky Sall quoi dañoo xamul démocratie joxuñu ko woon cër quoi joxuñu ko woon benn cër mais après bi mu commencé. ci la la gars yi yëpp ne cooc yem waaw. très bien. fi lañ doon taxaw naan waaye bu ko mënee lekk na ko lekk bu mënee lekk. Karim waaye bi ñu ci <laughs> commencé te gars yi mujj gars yi naan waaw en tout cas daal moom nañ xoolaat mbir yi. seeral <laughs> waaw donc booy yi tamit il faut nga régler leen quoi. mi ngi noonu as info wax nga dëgg de nee na su ma demee fële waaw maa ngi wàcc kër goo nga xam ne fa laay waaj dem muy Sen TV incha allahu rabbi te bàyyi Assane Mesere mii du ma ko fi bàyyi. Hmm? Sen TV damay dem te du ma la fi bàyyi. waaw Omar de mi ngi leen di nuyu Omar Talla. waaw Omar nee na ma nuyu ma El nee na hmm. njëkk gëm njëkk maa jox kàddu. waaw nee na moom moo ko daan. daaraan la de. macha allah ko booy bi ngay jox kàddu mu ne ko ñëwal nga wax. <laughs> incha allah waaw comme jógee na fa il faut ñu dem fàtt tur il faut ñu dem noonu de. waaw il faut ñu dem alaaj bay boo nga teel a lijjanti kooku du neex a de jàmbaar la de. Hmm? non maag Assane bu ñu demee. nañ dinañ góor góor demoo. Ah, man nu may demee <laughs> man man maa yaakaar gi. yaakaar fa yaakaar fii laa. yaa yaakaar fii damay bañ a tas yaakaar ah, gars yi ah man de damay dem. ah demal man daal dem man de maag ñu nekk fi rek. su ma dee geer ak yéen. di ko gaar di ko gaar waale. waaw. borom ba xam ne tey mën di gaar waale rek. Ah, yow kay boo demee dañ lay jox mission ngay gaar waale. Ah. mission gaar waale kay beneen. non non ruq laay ubbiwaat rek. beneen mission damay dekkal ruq ba. en tout cas daal boo demee na nga tàmbalee. sol jàllaabe bi damay dekkal ruq bi ni ko bëggaan jox ma bureau jëndal may jàllaabe gaa yi jàllaabe lañ ragal. <laughs>